asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet ba rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal àq di leen baal àq di leen ñaanal jàmm ak tawfiq saadatu daarayni di ko sàkku ci yéen mbokk yi ñu ngi leen di ziara ci àjjuma ji di leen wax àjjuma mubarak comme ni ñu koy baaxoo di leen koy defee saa yu nekk di ànd ak yéen ci àjjuma ju nekk ci ay tegtal yoo xam ne jàpp nañ ne dina leen amal njariñ ci seeni yitte moo tax tey nag ñu dikkal leen ci tektal boo xam ne dana yombal ak tukki yombal ak tukki mooy dang ci nekk di ci lijjanti di ko yëngu <coughs> di ci yëngu ngir dem fa këyit ya ca war nga koy toppatoo ngir tukki ci dëkk ba nga bëgg a dem ànd ak nag ngay def tegtal bi loolu laa na bëgg a wax waxuma la nag ne da ngay def tegtal bi fi nga toog rek nit jël la yóbbu la nga tukki ci dëkk boobu déedéet maanaam ñaan moom benn day yombal li ngay lijjanti li ngay yëngu kon ñi nga xam ne dañoo nekk di lijjanti wala tukki tam bari lool te ñu bëgg koo jaarale ci yoon. bu ko defee nag boo amee say kayit di ko lijjanti wala boo nga war a dem dem dem ñaani visa ak xeet yu demee noonu ci ngay liggéey lii ma lay bëgg a wax lii ma lay bëgg a wax nag mel na ne dana jàpp ne allah ci kàttanu borom bi ndax yaari tur yàlla ngay boole muy allahu miin nga ak tur wu ñuy wax samadu allahu samadu cent quatre waaw allahu samadu ci tankiir bi nga indi doo ko indi ci maanaam ci nakira bi nga koy indi doo ko indi ci maarifa oo assamadu bu ko defee ñoom ñaar booleen booleen da lay jox booleen booleen da lay jox cent soixante-dix xam nga ne allahu soixante six la samadu ci nakara bi cent quatre la ndax soot gi mooy soixante mim gi moy quarante del gi mooy quatre kon da adat ñaari tur yooyu muy cent soixante dix nan nga koy liggéeyee da ngay adat sa tur bu fekkee Adama nga tudd quarante cinq lay doon masalan bu fekkee ne Awa nga tudd quinze lay doon maanaam ada sa tur ak sa sant li ñuy tudd al ismu wal laqab sa Adama quarante cinq bu fekkoon nga sant mooy sept quarante cinq boo boo ci doole sept day nekk cinquante deux kon masalan sa tur ak sa kon cinquante deux la <clears throat> nga boole ci sa turu yaay masalan bu fekkoon ne sa turu yaay awa mu sant ba awa boo ko xoolee quinze la ba boo ko xoolee moom it sept la quinze plus sept da lay jox vingt deux bu ko defee nga boole cinquante deux yi ak vingt deux yi ak tur dëkk ba nga bëgg a dem. bu fekkee France la nga bind France adat ko bu fekkee Amérique la nga bind Amérique adat ko bu fekkee Espagne la nga bind Espagne adat ko adat mooy nga déchiffrer ko mooy nga déchiffrer xam nga tur lettre la léegi nag nga déchiffrer ko mooy nga indi ko ci nombre numérique bi kon da ngay sa tur sa sant sa turu yaay ak santam ak turu dëkk a dem boo dégg ñu ne bul jumla mooy nga boole ko yooyu yëpp nga boole leen benn lim ak turu yàlla wii wala yaari turu yàlla yi allahu samad cent soixante dix mu nekk benn lim noonu mooy bul jumla léegi masalan lim boobu bu fekkoon ne lépp àddan nga ko mu jox la masalan mille deux cent wala mu jox la trois cent léegi ci trois cent yooyu ngay liggéey tur yàlla wi di allahu samadu trois nga koy liggéey moom ngay mën a ko wérd bi ba tey trois cent yooyu lañ la koy bindal saafara trois cent yooyu lañ la koy bindal saafara waaw lim ba nga am ci jumla kabir bi nga xam ne moom nga war a wérde moom ngay bind saafara soo ko bindee saafara nga fexe ba am ci réew ma nga bëgg dem lu bokk foofa masalan timbre baax na enveloppe bu baax na boo xam ne foofu la jógee nag ci réew moom nga dugal ko ci saafara si moom ngay sangoo so ko defee nag lan ngay liggéey yaa ngi liggéey léegi allahu samadu ca limba allahu samadu ngay liggéey ca limba juróom-ñeenti fan liggéey juróom-ñeenti fan wala boog boo sabaree nga liggéey rek continuer ba am ñeent fukki fan bu ko defee nag euh, nga génne booleeg nga génn sarax yii yii ma lay bëgg a jox mooy juróom-ñaari kilo mboq ngay génn sarax ak ñett litre soow te ngay fexe ba jënd lu toll soow ñetti litre gu suukar ko jox ko gone yi sant Jàllo wala gone yi sant Kan wala gone yi sant Sàllak ak ndaw ko ndaay dana baax ci ñoom. loolu mooy doon sarax bi bu ko defee nan nga téye sa koros di sikar juróom-ñeenti fan wala lu ko ëpp lii bokk na ci li yombal yoon wi nga bëgg a dem ak kayit yi ngay lijjanti ngir dem ci dëkk boobee ah, kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey jii ci gàttal rek ah, du la fàttali ngay woy daa abonné ci chaîne bi ak di tasaare bi di woy ndax bokk na ci li koy yëkkati ak li koy dundal